siyaare di dellu siwaat rek ni ñu ko daan defee te seen mbokkum taalibee di leen ko defal Moustapha Guèye taalibee sëñ Moustapha moom sëriñ ma Sàmba Mbàkke di soppeeb sëñ Mbàkke ma maam soxna loo Jóob Taïf tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdoulahat ci dëgg di am bekk rek di siwaat ci ñaareelu pàcc waxtaan wi ñu leen sumbal ci jàmbaari lislaam ji jàmbaaru yoonu murit jàmbaar ji nga xam ne ni wolof njaay di waxee naan fàkk tëdd doyloo yàlla wóolu yàlla bàyyee boppam yàlla def tawakal ak tawasul lépp ci suñu borom ànd ak sëñ Tuubaa boole ci bokk ci askan wu riis askan wu yaatu askan wu kenn yëbul askan ci ngor ci diine mu juddoo ca loola yàlla dogal mu gimmi yàlla ca loola ñu nàmpatal ko ca loola ba mu màgg doon ko mat sëkk di jëmm joo xam ne ku ko gis naw ko ku ko gis gën a naw sëñ Touba te kooka mooy kan mooy sëriñ Darou Assane Ndiaye ñu koy wax sëñ Mor Assane Ndiaye moom la ko Seexul Xadim daan woowe nga xam ne alxuraan jooju mu judd fekk ay waajuram nekkoon ci ci ñaari wetam yépp wetum ndeyam ak wetum baayam ba ay maamaatam waaye alxuraan jooju ñu ko nàmpatal jàngal ko ko jàngal ko xam-xam ba jumtukaay yi yi ñuy jaamoo yàlla yépp mat ci moom loola la fekk environnement boobu ay mbokkam nekkoon ci muy ay kilifaam te loolu la borom hamsiya di wax naan alifu nuska wal xibaadatu wal xilwatu tifla wa hakasa nu jaba sëriñ daaru asan nag dafa nekk ko xam ne bu fekkonte ne jëmmam ji ak mayam yi ak njàmbaarte gi ak juddoom gi moom képp la sëriñ Tuubaa amoon ci tool bi ci melokaan yii mën naa présenté sëriñ Tuubaa fu nekk ci àddina fu nekk fu nekk mën na faa présenté Seexul Xadim waxuma laag nag ba mu fa fekkee ñi nga xam ne dañoo mel ne moom te sëriñ tubaa junjoon leen waxoon ne wali xaada ahbaban bihi usulul mifta suñu borom moom ma wamatal ñoo ñi nga xam ne ñooy samay soppee ngir ma mën a wane samay manoore waaye tamit ba loola amee sëriñ Daaru Asan Njaay dafa bokk ci keno yi nga xam ne ñoo téye yoonu murit ku jàng nag ak dundam jàng histoire am moom da nga xam ni kii Serigne Touba rek moo mën a jiitu mu topp ci gannaaw waaye keneen ku ko mat kilifa ci kaw suuf amul keneen ku mat sañ Daaru Assane Ndiaye kilifa ci kaw suuf ku dul yàlla mi bind amul ci kaw suuf Serigne Touba rek moo mën a doon kilifaam ndax sëñ Touba rek a ko attan mu toll ne sëñ Daaru Assane Ndiaye comme na moo topp ci sa gannaaw xam nga ne kooko yow wax dëgg yàlla. ëppale nañ la sax di tulla tudd di tudd mbindeefum yàlla wax dëgg yàlla ndax yàlla jumtukaay yi nga xam ne moom lay def ci ku baax yépp wàccee na ko ci sëriñ Touba waaye nag boole kook ñoo xam ne si méngoo nañ ak ak ay mayam jikkoom jooju mu yoroon nag Seexul Xadim ci la yële fi sëñ Darou Assane Ndiaye mii ci la yële fi sëñ Malamine Gaye ah, Firdawsi waaye ci la yilife sëñ Abdourahman la ci la yilife mbooleem ñii nga xam ne ñoo ko toppoon ndax du ñoon ay jaahil bi ñu ñëw ci sëñ Touba jumtukaay yëpp xam nañ ko tax ci sariixa bu sell lañ doon dox ak ko xaqeex bu ñu gisoon loo xam ne si nekkul woon loo xam ne si lu jub la wala mu tegu ci yoonu jub amuñu ñàkk fayda dem di topp jëmm jooju moo tax nag bañ demee ba natt seen xam-xam ak fa ñu toll ci capacité ci wàllu xalaat ñu xam ni kii nag yàlla moo ko fi yabal nga xam ne xabdan min ibadina aataynaahu rahmatan min hindana boobu moom la lañ daal di nag nag sukk nag boole seen jumtukaay yooyu yëpp ñëw jox ko ko kon sëñ Darou Assane bi nga xamee ne fekk si ne sëñ Touba Mbàkke Kajoor boobu sëñ Mor Anta Sali ngi fi waaye xam-xama ko womat nag ndax yàlla ko sànni faari xam-xam yi nga xam ne moom fu ne jàng na fa ndax bu leen fàtte ne sëriñ Njaay Aram moo ko jàngal di rakki baayam ca njare sayar waaye ba nga xamee ne yàlla dogal na jàngal na ko ba mu demee ba nga xamee ne yewwu na ci njàng mi comme fi sëñ Touba jaaroon ak sëñ bu soobee foofee la jaar ak waajuram woowu ndax daal di mujj ñëw ngay kër Saama Yoro googu ngay kër Saama Yoro la mujj ñëw wala àggale alxuraan ja fa la ko mokkale fa la ko bindee waaye fa la ko wattoo waxoon naa leen ne wattu alxuraan yombul kaamilu lëm bismillaahi rahmaani rahiim nga da nga dala ci tàmbale di di di di bind doo bàyyi maska doo bàyyi sadda doo bàyyi dara ba kaamil ba mat kaamil boobee ñu xool ko topp ko gisuñu lenn lu ca yàqu te xooloo ko tegoo ko bët wax dëgg yàlla kooku moom ñëpp xam nañ ne moom alxuraan kenn ku ko ci raw gisuma ko waaye nag mu tàmbalee fa njàngam xam-xam kër sëriñ Mor Madiang Fëloo dem na fa jàng na fa ci xam-xam bu bari wax nañ xam-xam yu bari yoo xam ne sii jàng na ko fa ndax moom it noonu lañ daan def ndax mag ñi xam-xam daf leen a jaraloon tëj seen kër bàyyi léppi àddina dem ngir sàkku ji xam-xam mag ñi dañ ko daan def sëñ Tuubaa gis ngeen fi mu naan fa jultu bàyyi naan ulama i wa awliya bi niyati wa hamali wa xawliya attan sarabtooxaa ma jey sa sin ilaa xidmata a rabbil alamin daana dem Saalum daana dem Kajoor fu ne sëñ Touba wëndeelu na fi atam wëndeelu ba dégg ngeen ko mooy bi sëñ Mor Anta Sali wàccee liggéey ci Sassasine ba yàlla dogal mu toog fa ba soxna yi ñeenti weer ya nga xam ne moom la ñu war a liggéey liggéey ba mat mu daal di fay jóge daal di dem fi nga xam ne mooy Mauritanie juróom-ñetti weer ñi nga xamante ne si ñoo fa nekkoon yoroon fa ay tarixa tarixa Sassaliyu ak yeneen ya ci aju yépp kenn ku ne dem na ba gisee kilifa ga ba tatagal ko ñaanal ko jël ci ñoom diir boobu bépp sëñ Tuubaa booba xam-xama ko ñor ak li may yi ko yàlla may bi mu dellusee nag la door a taxawal nag li nga xamante ne sii mooy euh, daara mooy tarbiya bokk ndax bi mu ñëwee la daa di wax mbooloo ma ne leen saafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam rabbi asaabaka bi himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabba kulla wahidin minhum bima yaliqu bihi bi maa yëleexu bihi boobu nag foofu la mbir mi nekk foofa yëpp kenn ku nekk moom mi yàlla may fi mu toll ci daraja mooy xam kenn ku nekk nag bi maa yëleexu bihi joojee nan la koy jëflanteeg yow ndax ñëpp bokkuñu yoon wu ñu jaaree ba ñëw te ñoom ñëpp bi ñu dikkee sëñ Tuubaa boole na leen dajale bi maa yëleexu bihi joojee nag mooy li nga xamante ne si moom la ko yónnent bi sallallaahu alayhi wa sallam wax faqad alamka Allaahu bi bi biya bi ma xuloo bi bi ma fi xuloo bil alamin waxaat xalamka laahu biya bi ma fi xuloo bil alamin suñu borom xamal na la ci sama daraja kenn ku nekk xam nga position ba mu taxawee ak nam tollool te loolu mën nañ ko misaal ci li nga xamante ne sii mooy boo demoon tey hôpital yóbbu sa malade jàngoro ja nga ko yóbbu boo demee da nga fekk ambulance yi indi na nga fekk ñeneen indi te kenn ku nekk doo bokk ak sa morom lal doo bokk ak moom ordonnance doo bokk moom garab doo bokk ak moom lay traité. noonee nag la doon traité ñi nga xamante ne sii mooy ni ko yonent bi waxoon ne ko wax la euh, faqat xalamka laahu xalamka laahu biya bi ma fi xuloobil xaalamin loola nag tax na kenn ku nekk mu yan la la nga xamante ne sii kemtu lay kàttan moom nga tollal nga xam ne sëñ Daaru Asan Njaay mii keroog bi nga xamee ne yàlla dogal na sëriñ Tuubaa mii nekk Mbàkke Kajoor ak waajuram mu jaar fii mu jaar nee naa jaar na kër sëñ Mor kër sëñ Mor Madiang Fallo ba mu fa jógee wax ngeen ne nee dem na ndar dem na ca kër nijaayam joojee Mouhamadou Kan bu ndar nekkoon céem eh, ci armée li céem yi foofa ba mu demee natt na ko fa ndax wax nañ ne jël na weewam bu gudd jam ko ci yaram yi ba mu dugg nekkoon ndax yëg nga ko mu ne yëguma ko de mu ne ko sa jaamu yàlla nag na demee nii na ko jaamu ba duutoo yëg dara ci luy metti loola jaar na fa kon kooko tarbiyo na ko mu jaar ci alhaaji Mali si mu baax ma mu jàngal ko naxu donte am na ñu koy dàq waaye amalu ñu solo jaar na ci Amadou Ndiaye Mabé jàngal na ko waaye jàng na xam-xam yi nga xam ne mooy xam-xam yi nga xam ne moom mooy eh, moom ngay duggee ci li nga xamante si mooy jaamu yàlla dëgg muy xam-xamu wéetal yàlla wéetal yàlla nag mooy al imaan xam-xamu nag jaamu yàlla dëgg-dëgg mooy al islaam muy fiq xam-xamu rafetal dëgg ci lislaam nag mooy at tasawuf te mooy al ihsan yooyu yépp xam-xam mënoon jàngoon na ko léegi nag mu des yeneen xëroot bayaan ak mantiq ak usul ak luqa yooyu yépp des na te mooy jumtukaay yi nga mën a accompagner ci yii nga xam ne moom nga jotoon a jàng ba noppi yooyu nag booba jenn daaraa ko fi yoroon yoo xam ne ku mas a taal taalub jàng foofa nga daal di jafale sa sa sa gilint dem taale ko réew mépp maase woon na ci ne sëñ moom Mor Anta Sali moom daaraam mooy daara ji nga xam ne mooy université bi nga xam ne faculté yi yëpp boo soxla boo demee da ko fa fekk te loolu ko may moom it dafa daan àndoon nag sëñ bu soobe dem kokki kër sëñ Masamba Anta Ceeba doom yi Madun Penda bu yam yi doom yi sëriñ euh, Maxtaar Ndumbe jàng fa xam-xam jóge fa ànd ak sëñ Mirina Sill daal di dem fi nga xamante ne si mooy euh, Bamba ga ca Saalum kër Ahmadou euh, Sall jàng fa xam-xam door a dikk nag ñëw fi nga xam ne mooy eh, Mbàkke wala waaw Mbàkke ki njàkk njàkkan muy pour Mbàkke samp fa daara ju mag ku ne nit di fàqe ci àll ba ñëw di fa jànge ndax jumtukaayu xam-xam ya fa nekkoon ba noonu yi nga xamante ne si ni la Maba Jaxé woote jihaad ca Saalum ci eh, xare bu fa amoon ca Ñooro yàlla dogal mu dajale kilifa yi moom it ñu boole ko ci mu dajale njabootam gépp Cheikh Ahmadul Xadim demoon na boole nañ ko ci ña nga xamante ne sii dañoo àndoon ak sëñ Mamour Anta Sali waaye booba ay atam bariwul soxnaam yëpp ak doomam yëpp dem wax dëgg yàlla ñaari doomam it gan fa jamono muy sëñ maam Thierno euh, Mbacke euh, Ibrahim ak sëriñ maam Cheikh Anta ñooñu foofa sax lañ gënee jamono waaye mabba it ba mu demee daf koo jël def ko ab xaadi yi pour mu di ko atteel ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la dëgmal di ci di di di ci di ci liggéeyal yàlla. mu gis nag maanoo ngi ci moom xam-xam bu ma sëkk ngi ci moom tax Lat Joor bi muy xeex ak maa joojo ci fi nga xam ne moom la doon xëccook moom yàlla dogal tubaab yi jàppale ma joojo ñu dàq Lat Joor Lat Joor dem ñooro bi mu demee laata muy dem fa nga xam ne fa la sëñ euh, Mor Anta li nekk ak Mabba Jaxu ñoom ak ñam kuddeel googu dafa yëglu màbba ne leen bu tuubul bu mu dugg si ñu ñëw wax ko ko mu daal di tuub tuub ga mujj nekk dëgg ba mu ñëwee nag la wax Mabba ne ko dama bëgg nga boole ma ci ñii koo xamee ne que nii dana ma man di ah atteel ci diine mun ne ko sëriñ moor Anta Sali mii daal gisuma kenn koo xam ne si raw na ko ci xam-xam ak daq ko at yàlla dogal mu daal di tax am ak moom foofu kóllëre bi xare bi jàllee ba yàlla dogal ñu dellu siwaat bi mu nekkee paataar da ko daggal foofu daa di dem kër Amadou yàlla moom dëkk fa moom Lat Joor bi ñu ñëwee Mbàkke Kajoor it gis nga ko daa dem deqale dëkk fa ñëw daggal ko foofu Mbàkke Kajoor sëñ Mor bi mu ne ci daara ji diggante boobu lu mat ñetti téeméeri Euh, laxasaay yooyu ñëw di jàng ñuy ñëw di jàng si wut si sàkku xam-xam ci réew mi fu ne dajaloo woon nañu fa ci ñu defee sunu recensé lu mat ñetti téeméer yu teg bi muy génn àddina moom la bàyyi ci ñu doon sàkku si xam-xam xam-xam boobu mu am nag di ay faculté yu bari mën cee génn ci la ko Sëriñ Tuubaa doon tagge naan ko ayaa man baxal ahkaami yaa xawsu dilliili ayaa xarmu euh, yaa nammoo ayaa yaa xarmu yaa moo su yaasal xutbu sil jiidi ayaa man baxal ahkaami yaa xaw su dilliili ayaa xarmu ayaa namoosu yaasal xutbu sil jili wane na sëñ Maamoor bi waajuram bii xam-xamu xikma bi nekk ci moom gis nañ ne mooy balluwaay ci képp koo xamante ne si soxla nga ko mooy ki nga xam ne it mooy xettaliku kaay bi nga xam ne ku bëgg a xettaliku ñëw ci moom waaye mooy xutba bi nga xam ne daa sës ci borom namus secret suñu borom yëpp mu ngi ci moom loolu Sëriñ Tuubaa ci la ko tàggewoon ci xasida ko defoon ba indi ci way woowu te xam-xama xikma boobu boo demee ci alquran da ngay fekk mu naan yuutul xikmata man yasha wa man yuutul xikmata faxat utiya xayran kasiran wa maa yazakkaru ila ulul albab gis nga noonu ko alxuraan tuddee ni la sëñ Touba tagge kii nga xam ne mooy waajuram boobu ci daayab xam-xam boobu sëñ Darou nag bi ñu ko niitee lumière boobu nga xam ne mooy xam-xam te am na yum mu war yoo xam ne si war na koo jàngi ci gëstu bi gëstu wax nañ ne loola moo ko nit ba indi fi nga xam ne mooy Mbàkke Kajoor du kenn ku ko para pagaano nag wala ko ko forcé wala ku ko def dara yàllaa ko nital ndax waajale ko sëñ Tuubaa mu bokk ci jumtukaayam yi wane ay manoore keroog bi mu dikkee wax nañ ne Haarut bi mu sàkk woon a jàng sëriñ Tuubaa dafa ne ko ki mu ki ma ko ki ma ko doon ki moom téere bi ma doon jàngalee fii de moom dafa génn te dafa yóbbaale téere ba waaye nag su fekkee Euh, ñor na la pour nga jàng ko mën naa la ko jàngal ndax boobu mi ngi cib dënnam ci la na ko ñor na ma mu daal di koy jëlal ëllëwa di ko ci bindal euh, ay dars su ko ci bindalee ba mu jàng ko ba mokkal ko iffancé raxas defaat leen ba téere ba jeex ak yeneen xeeti xam-xam yooyu yooyu yëpp jàng na ko te li tax sëñ bi def ko cib dënnam it téere yooyu gis nañ ne ñu bare bare bari bari kuñ ko masaan dégg ci réew mi donte téeméeri kilomètre la dinañ dox dem jàngi ko fa boo demee ba wuti téere booba it la ngay man buñ la ko mënta jox mooy da ngay jël dara bind ko ci dem ca ka ko man doxaat ay kilomètre dem ca kooka mu jàngal la ko ba ba ngay man téere bi booba téere ji yombewul nii woon nii sëñ Daaru Asan na yàlla dogal na fekk na sëñ Tuubaa def ko ci dënnam te loolu day màndargaal wala day firndeel ci la mu waxoon ne afistuma siina anit dafatiri fala takkun an xidmati bi fatiri man yàlla jox na ma xam-xam boo xam ne sii nekkul ci ay feggu waaye bu waxee ne alamani llahu mimma yasaau minhu lam loolu it mën nañ ko takk ndax loolee sëñ Tuubaa man yombul ndax gis nañ na mi ngi ci aw waajuram te njàngaleem moom la taalibe yépp mujjoon gën a taamu ndax fasaaxa bi mu yor ak it gaaw gi nga xam ne bu la li nga xam ne bu la ko jàngalee da koy mën te duutoo ko fàttee loola tax na ñu waxoon sëñ Maamoor ne ko dañoo bëgg nga boole ñu sëñ Touba nga xam ne sëñ Moor bi ci mujjam sëñ Touba moo yore daara ja ba taalifoon fa sax ay ay ay ay xasida yoo xam ne sëñ Moor jot na koo jàngal ay doomam sëñ Cheikh Coro ak ki nga xam ne mooy sëriñ Afia te loolu booba sëñ Touba ah agseegul fii mu agsi bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor it ca noona lañ nekk ba sëñ Moor wàcc ci atum sasasin muy 1300 yamanteeg 1800 ay 80 wala 81 nga xam ne weer yu néew après sëñ ma gën a jamono sëñ bi daal dafay toog ñeenti weer yooyu comme ni leen koy waxoon ci njëlbeen ga soxna yee liggéey ba wàcc ba mu dem ba wëndeelu Mauritanie bi mu dikkee nag ba mu woote yoonu murit nag ñu njëkk a jaayante wala ka njëkk a jaayante mooy sëñ Adama gi ka ca topp sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ka ca topp mooy ki nga xam ne mooy sëñ ma sàbb sàbb Jóob saam ka ca topp sëñ Abdourahmane Lo te sëñ Abdourahmane Lo la tax mu topp ca moom jébbuluwul ca bisu àjjuma ba ñaar fukki fan yaag juróom-ñaar ca weeru euh, koor dafa demoon cura cungeen euh, gi nga xam ne euh, ndayam moo fa nekkoon muy soxna Mareem Jóob Sekk mi jur soxna Aminta Sekk mi jur ki nga xamante ne si mooy soxna Surang sëñ moom sëñ Mamor Jaara jamono jooje moo bindoonub leetar Euh, kilifa ya nekk foofa ngir bëggoon ko ñëw ci kër gi waaye bañ demee dañ na ko ki yore kilifte fa ma nga ca daara yi sëñ Touba Abdourahmane loola mu daal di jëlaat leetar ba yónnee ko sëñ Touba mu jox ko sëñ Abdourahmane boole ko ak sëñ Modou Gueye jëm mooy na ko demal nga lijjanti yi lii ba mu demee bañ lijjanti ko ci alxamis ji ba lépp yembu ci ajjuma ji ñu daal di wàññeeku fekk yoon wa taxaw na ca Mbàkke Kajoor bi ñu dikkee nag mu ne nan jaar fii ci sama mbokk mi bàyyi ma du asta jaxate mii nga xam ne ñoom ñaar Euh, ay classe lañ sëñ Abdourahmane magee na ko juróom benn fan bàyyi maam Masata Binta Dun moo jur bàyyi ma du asta jaxate tam sëñ euh, Masata Binta Dun moo yor mu joon yor waajuru sëñ Abdourahmane muy soxna Marème Mour Seck te soxna Marème Mour Seck ak soxna Marème Diop Seck ñoo bokkoon ndey ak baay soxna Marème Diop sekk nag moo jur soxna Aminta sekk mi jur soxna Soro mi ñu joxoon Serigne Maam Mor Jaara mu jur sëñ Mor soxna bi ñu nee nañ fa jaar nag ñu waxtaan ak moom pour mu mën a ñëw yërndu ko ndax jàng du bi nu ñëwee lañ ko wax mu ne man kat damaa am ngànt ndax soxna sii muy soxna jang libaas dafa denc maanaam dafa denc booba sañ am sa jaxate gëneegul jamono waaye mu sàkkoon ci ñoom nag ñu fanaan ngir dimbali ko ci ab liggéey bi mu doon santaane yàlla dogal ñu daal di ko cay jàppale ba ca gaawu ba ñu war faa jóge pour del si mbàkke kajoor léegi ndaw ñëw ci sëñ Madou Asta Jaxate ne ko ah, gankat mujj na am ca kër ga mu daal di wax sañ daam na ko la ma la doon wax kat firnde jaa ngi nii soxna sa mujj na yeewi ko ñu laaj lu mu am mu ne góor mu ne kuñ koy tudde mu ne nañ ko tudde suñu baay sëñ Masata Binta Doon muy sëñ Amsata Jaxate kon sëñ Amsata Jaxate bisu ma boobu ci la gane jamono yamoo li nga xamante ni si mooy taxawal yoonu murit léegi nag ci gaaw bi bi nga xam ne wàññi ko nag moo sëñ Modou Gueye jëmooy ba yàlla dogal ñu ñëw sëñ bi ne leen yéen kat yàgg ngeen ca mbaa ñu wax ko ne ko ngant loolu lañ am mu ne bu ngeen wutoon ngant dafa am ku leen fi wutu démb muy sallallahu alayhi wa sallam saafaha nii rasulullahi sallallahu alayhi rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat wa rabba kulla waahidin minhum bi ma yaliqu bihi ba mu ko waxee loolu nag mu daal ne kan moo jëkk a jébbalu ñu ne ko sëñ Adama Guèye ku ca topp sëñ Ibrahima Sarr Njaañ ku ca topp sëñ Massamba Diop Sam sëñ Abdourahmane moo ba mu jébbuloo sëñ Modou Gueye jëm mooy moo ca topp fekk booba sëñ Daaru Assane Ndiaye xam-xam bi ko yàlla jox dafa bokk ci mandarga yi booy dund islaam dëgg rawatina tasawuf looy dugg da nga ko war a toog calcul ko xalaat ko ci yàlla loola nag xam-xam booba moo tax moom jébbulawul ci ajjuma ja waaye ci gaawu ba la mujj jébbulu ba mu xalaatee ba xam ne moom nee na dama nekkoon ci ak lëndëm këriis waaye mu jekki-jekki mel ne dafa am leerug jant gu yàlla teg ci sama kanam jooxe ne sii joxañ ba mooy fee nga xamante ni mooy fi sëñ Tuubaa nekk kon nag amatuma jenn yëtte joo xam si mënati naa toog benn place ndax loolu dafa bokkul ci nite la daal di jóg rek daal di topp leer ga bi mu dikkee daal di fekk Seexul Xadim foofu nga xam ne fi la nekk mu daal di koy daal di jox boppam moo tax mu nekk juróom-benneelu position ki nga xam ne mooy sëñ Mandoumbe nekk juróom-ñaareelu ki nga xam ne sëñ Mbàkke Buso moom it fekk ko fa woon waaye ña nga xam ne dañoo déggoon woote ba te nanguwuñu wuy si ñoom la dégg ñuy wax naan sëñ ba la mu woote kenn xamu ko ca loola la daal di ñëwee daal di nekk juróom-ñetteelu position waaye ki nga xam ne sëñ moo Modou Ndiaye tàggar moo nekk ki nga xamante ne si mooy ñaar fukkee mooy mooy juróom-ñeenteelu position maa ngi jéglu noona la yoon wa taxawee di yokk ba ba maam Cheikh Ibrahima Fall di ñëw di jébbalu si ca fekk na mu toll ñu toll ci fanweeri nit ak juróom mu daal di jébbalu nekk ñeent fukkeel ba loola lañ def sëñ ba daa di nag jóge Mbàkke Kajoor ànd ak sëñ Dëru Asan Njaay ak ñooña ñëw sañc ci Mbàkke Bawol lañ fa dund lépp moo xam ay weer wala ay at sëñ Dëroo nga ca la ñuy def lu sëñ Dëroo nga ca bin ñëwee Dëru Salaam ba sañc ko sëñ Dëroo nga ca la fa sëñ ba daan deflu ak lam fa daan defee lépp sëñ Dëroo nga ca ba sëñ bi ñëw sañc Tuubaa sëñ Dëroo nga ca waaye foofu it la tàmbali nag di liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bu wér ndax gis ngeen ne fii armeel yi nekk armeel yi nekk yéen ñëpp teg ngeen ko ba gis ngeen ne sëriñ tubaa lam fi njëkk a bay mooy xaal xaal jafa sëriñ tubaa njëkk a bay nag euh, wax nañ ne ba mu sontoo ñaari xaaj la ko sëriñ Touba xaaj benn bi da koo jox góor ñi ne leen ci fas leen ci yéenee mucc yi ci yéefar yu góor yi nga xam ne ñoom ñooy euh, jëm sa waram jëlaat beneen xaaj bi jox ko jigéen ñi ne fas leen ci yéenee mucc ci yéefar yu jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo jëm sawara loolu la leen sëñ Tuubaa wax léegi nag daal fay bayaat dugub ba mu fa bayaatee dugub nag ñu jaag fa jaag bu mag boo xam ne jaag ba xawatul nawet fekkat ko fa léegi yàlla dogal nag sëñ bi bojj bojjlu ko ba mu koy bojjlu kat ñan la woo soxna Faati Kan soxna Faati Kandi moom la woo mi nga xam ne mooy taawu sëñ Maamoor Jaara ak ki nga xam ne mooy soxna Faati Kura ñoom la woo bojjiloo leen ko ba ñu ko bojjee nag ba noppi fa jaag bi nekkoon it mu defaraloo waat leen ko bañ ko bojjee ba defar dugub bi mu nekk ci lu toll ci juróom-ñeenti mata ak i àndaar juróom-ñeenti mata nag mi ngi nekk bërigo ay bërigo léegi nag mu pare daal ne gis ngeen fepp yi nekk fii mu ne waaw mu ko bis bu fi ruuyu toll ni dajee suñu borom dajale asamaan ak suuf ci la àddina di tukki foofee sëñ Daaru Asan Njaay daana fa bàyyal sëñ Touba moo ku ñu wax sëñ Omar Diop ñoom ñaar daanañ fa nekk muy nekk ci tool yi di bay mbay mu metti ci loxoom moom sëñ Darou Assane Ndiaye bu nu wàccee nag ba nit ñi eh, nekkaat ci yeneen di mel na luy noppalu moom fee ñu ko denc fa la defoon mbaarum ngeer def ab deram di jaamu yàlla di jàng alxuraan boole koog di wërd te loolu bu ngeen ko xoolee dangeen gis ne bayit bi sëñ Tuubaa di wax naan kaanu eh, isi laylu arxa sitra sa alakin raamoo ziraaxani li ihya in dujaanaati mu ne am na ci ñooñ bu guddi gi sàmbantre ba suturam ci ci suturaam si nga xam ne moom la yor nee na nit ñi di tëdd ci seeni lal moom ñoom góor ñooñu dañuy jóg dem lal seeni der di dundal guddi ga ba bët seet wecc ñooñu nag ci la sëñ Darou Assane Ndiaye mii bokk te loola gis nañ ne am na fa boole ko bu bët bu bu fa fanaanee dinaa fi la ba bët set bu ñu xëyaatee dem ca tool yet noonu lay àndatee toole kon kenn musul xam kañ lay noppalu te bu leen fàtte ne téeméeri rakkaa la daan naa fi la par ci kaamilu alxuraan sëñ bi joxoon na ko ayatul kursi it mu koy jàng lu toll ci fanweeri junni yoon ak lu topp boole kook loola. kon loola liggéeyal na ko sëñ Tuubaa ci armeel yi waaye barabam bee ñu ko denc it léemoo na ko loola tertoon na ko loola ba yàlla dogal kër Daaru Xuddus yi it bi ñu koy defarlu am na ko sëñ Tuubaa defarloo woon ñi làkk ba ñu ko doon def ak moo futti ko ànd ko doon def ba def ko ba mu àgg néeg ba fa nekk ñu tuddee ko néegub alxuraan bu ñu ko waxee néegub alxuraan du alxuraan ana nan la liggéeyee ko maanaam fu ñu war a samp xeer wala ñu war faa daajub laat wala ñu war war faa euh, rabat wala ñu war fa sàkket wala ñu war faa def lenn lu ci ne bala ñu ko no càpp di def day woon nit ne ko jàngal fi ayib alxuraan ba néeg ba noppi néeg boobu néegub alxuraan la mu daal di am na ngërëmal sëñ Touba sëñ Touba nag door koo gërëm nag ne ko nag kaay nga dellu ci say bokk xam nga ay bokkam euh, ñaare ñu mel noonu bu ñuy door a dugg ci lu nii ñu jàppe leen ay dof bokk dañuy am ñoo xam ne dañuy démissionné ci ñoom waaye bu sëñ bi paree ci ñoom nag da leen di boolewaat ak seeni bokk du leen ber fenn bi mu delluwaatee fi nga xam ne mooy njare sayar nag yàlla dogal bokkam yooyu am na ci ñu ko wuy si ndax bi mu wootee waaye am na ci ñooñ nag dañ ne lii kii jikko jii mu indi ak jëmmam ji kii moom du nit ñu daal di commencé di ko xatal ba mu dir si waat ci sëñ Tuubaa wax ko sëñ bi nag boo demee nga jóge foofa dem fa nga xam ne mooy kër Mor Madiang Faylo boo demee ca gànnaaru dëkk ba nga dalee fa jàng suuratu yaasin ba ba ngay àgg naa si foo àggee naa rek foofu moom mooy barab yàlla dana la fa fekk muhammadu sallallahu alayhi wasallam dana fekk man mii dana la fa fekk ak lépp lu ma am mu daal di def noonu ba mu demee ànd ak gaa yi jotoon a ànd ak moom génn dëkk ba ba mu demee daal di tari tari yaasin ba àgg ci minal jinti bi naas yam ci gentaatu garab ñu daal di xam ne foofu la ñu daal di fay defar kër mu tàmbul di fa bay di yónnee sëñ Touba ay addee di ko sëf ci ay warukaay lu sëñ bëgg rek loola sëñ Daaru Asan Njaay nga ci loola nag yàlla dogal mu nekk ca ba foofa xat ndax moom fu nit ñi baree rek day daal di jóge foofa dem comme ni dundu sëñ Tuubaa la doon dund moom mësta xaar li ci loxo nit ñi moom li mu am ci sëñ Tuubaa da ko gën a léegi nag lañ gis nit ñi fu nu wootee wala ñu tudd aaya wala ñuy fàttaliku mag ñi wala lenn lu ñu am ci sëñ Tuubaa rek xaalis lañ koy wuti taalibe yi alal dong lañ dund ñoom nag dañoo bokk ci kuur ba jëkk jébbalu nga xam ne wóor na la ne li boobu ak naa fekk xewul ndax ay jafe-jafe dong nga ci nekk te mën ngaa dem ba mu yàgg yëf ya yàqu loola jaayante kon loo mën am ci sëñ tubaa li sëñ Daaru Asan Njaay ñoom am ci sëñ tubaa mënoo àgg ci ñoom ndax ñoom ci uur bu njëkk ba la léegi nag murit gi yomb na bari na gis nañ xéewal yi ñuy bare nga daw ñëw naa fekk luñ ci woote woon tey ab xare tey léegi ñëpp daal di deltu gannaaw ñoom nag booba lu leen sëñ bi mas a sant rek def nañ ko mu daal di nag daal di tuxu daal di te foofu mu ngi tuddoon Daaru Salaam moom la ñuy wax Daaru Njaay bi sëñ tubaa jógee gànnaar jaar na fa bi yàlla dogalee mu jógee foofa nag ci xataayu suuf sa ci la demaat ba fee mu def Daarul Xaddim ba mu demee mu toog ci taatu garab ànd ak ñam àndal ngir bëgg faa wéet di jàmm yàlla di liggéey ca la dem ca jaraaf ja nga xam ne moo nekkoon ca penku dëkk ba wala ci wetu dëkk ba dem wax ak moom ne ko man kat damaa ñëw fii bëgg ku ma wutal suuf soo xam ne dinaa fa man di jaamu yàlla di liggéey di yët Sëñ Tuubaa mu ne ko demal boo demee nga toog xaar ma danaa la fekk mu jaraaf ba bàyyi ba ngoon mu ànd ak dag ya daal di ñëw fekk ko fi mu nekk wax ak sëñ Daaru Asan Njaay noo ko bëgg foo ko bëggee mu ne ko fii lii wër garab gi doo nga sax boo ma ko joxoon man mën naa fee jaamu yàlla mu daal di jox benn dag ab xettar ne ko sànni ko lu mat fukki yoon nga xam ne bu ko sànnee dana daw lu ëpp 100 mètres nga xam ne bu ko defee fukki yoon ci xibla bi xibla bi ba mu kaare léegi loolu la tëkk tàmbali nekkat foofu di ko liggéey loolu mi ngi yemoo 1912 jàpp 1913 nekk fa di bay di bay di bay ak a dundee ba mujj yàgg mu door a dem ci wetu Mbàkke Bari fa la sancaat beneen dëkk bu ñuy wax Touba Ndiaye Touba Ndiaye googu mi ngi ko sanc ci 1921 ñetti at la fa def après daal di wujj suñu borom 21 22 23 24 mu wujj suñu borom sëñ Darou Assane Ndiaye noonu la daan def sëñ Tuubaa it daan ko bind ay leetar bind na ko boo xam ne fii da ko ca doon gërëm di ko sant ci ay jëfam yi nga xam ne daana ko def ndax bu ngeen fàtte ne am na eh, benn leetar bu ko sëñ Tuubaa bindoon naan ko jasaaka rabbuka fii daarayni yaa xasanu xayran bi jaay yi la si min najlihil xasanu nee na ko yàlla na la suñu borom fay yow yow sëñ Darou ci àddina bi ak àllaaxira fayaale say mbokk defal la ko àddina ak àllaaxira yow mi nga xam ne sa tur wi dafa nuroog sa sa jikko ji daanako nag fay la yiwu àddina ak àllaaxira ci barkeb kan muhammadu rasululaahi sallallaahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci aw xeetam am na ca ku ñuy wax asanu muy ab sëtam nga xam ne tur wa ak jëf ca ñoo bokk mu dellu waxat na ko xataa taxuusa la si tarji wa tàmmula oo omi man la xoo xat ba daal képp maanu wal alanu nee na ko ñaan gi ma lay ñaanal dama bëgg muy dal dal ci sa kaw dal dal goo goo yëg dal goo xam ne day laqaale say day laqaale sax la nga xam ne yaa ngi koy yaakaar wala nga koy mébét ci yaakaar wala mébét rek la nga ci yaakaar ñaan da ci dalaale tukkee ci ki nga xam ne nag moom moo xam lu nëbb moo xam lu feeñ moom dana sulli lépp jox la waaye mu doon la ci ne fa alam bi anni radi anka mu tallibun an jaakal fawsi min mawlaaka wal mikanu nee na ko na nga xam ne ku la gërëm laa man man man mii man sëñ Tuubaa man ku la gërëm laa te bi ma lay gërëm nag dama laa gërëm gërëm goo xam ne dama la cee sàkkuwaaleel ci yàlla mi nga xam ne moom mooy buur yàlla na la yàlla texeel texe gu la ñeel yaag sa njaboot te lépp looy woote yàlla na nga yàlla na nga ci jot fajog aajo nag biiru bitti ak xéewal di la sàkkul di la ko sàkkuwaaleel ci daraje yi nga xamante ne si mooy daraje yi euh, aji bindi mu dellu na ko wala tasal fi tuqaa wa rushdi mujtahidan kay laa yulaaqiikal xisyaanu wal fitanu maa ngi lay dénk nag li ab dénkaan la bul dañ mukk ci di ragal yàlla ak dox ci ak jub waaye na ngay wattandiku it ay tereem tey farlu bu baax soo ko defee nii day képp koo xam ne sii day mooy yàlla du la jege du jege sa njaboot fitna tamit du la jege bu mukk xam ngeen ne leetar boobu neex na lool waaye am na leetar boo xam ne sii kii nga xam ne mooy sëñ Omar Diop la ko sëñ Touba bindoon wax ko ci ay yëf yi muy def ba pare adresse bind ca suuf ne ko nag nag ma nuyuwaalal sa dëkkandoo boobu nga xam ne turam yi dafa nuroog jëfam ci xaritoo googu ñu xaritoo woon nag tax na bu masaan ñëw ci bés na bis mas naa ñëw njëriñ di nuyu si sëñ Touba moom sëñ Dero Assane Ndiaye wax nañ ne bi mu ko joxee loxo sëñ Touba nanguwutu ko jox loxo ne ko bu Omar ñëwul du ma la jox loxo mu génn dem di seeti sëñ Omar dajante ki ko sëñ Omar tudde woon muy sëñ Assane Diop mu ne ko ana sa mu ne ko moom la may yëglu pour mu ñëw nuyu si sëñ ñoom ñaar ñu ànd ñëw nañ si sëñ bi sëñ Tuubaa bind na ko leetar de fa nga xamee ne fa la nekkoon ca dëkkam yooyu mu sañcoon leetar boo xam ne sii da koo jàng ba noppi bi mu ko jàngee fekk ko tool ya ndax bu mu jullee fajar rek daal di jubali tool ya danaa di woon ñëpp woo sëñ Magay ñoom ñëpp ak sëñ Masab Umi ñëpp ne leen nag ñëw leen ngeen woo fare ñu ñëw dajee si ma jàng ko ci seen kanam bi ndikkee bi mu ko jàngee dana ko sëñ Tuubaa nee na lépp loo xam ne sii nit a nga koy wut ci àddina mu tëg ko yow yàlla jox na la ko bis naka tey nanga xam ne yàlla gërëm na la yonent bi gërëm na la say waajur gërëm nañ la alxuraan gërëm la ñu man sëñ Tuubaa gërëm naa la képp koo xam ne lëggéeyal na la lu tuuti tuuti dara nanga xam ne kooka yaramam araam na safara ba mu noppee nit ñi daal di xaacu daanu ci suuf te xam ne booba nag kon na ko kon sëñ Darou Assane Ndiaye ca noona la nekkoon xam ngeen ne na la toll ci ñaar fukki seex ak benn ñii ne ñaar fukki seex ak ñett waaye lu ci mën a am rek ñaar fukki seex yi teg na seex yooyu it ba mu leen di seexal daf leen a seexal ci mu defoon ci moom pour mu gën a yaatu kenn ku nekk mu taalal ab taal ngir nga mën a niit fa nga nekk loolu moom moo waraloon seex gi waaye seexalul yoon pour ñuy toog di ko noose wala ñu toog di ko puukare woo ana seex googu mooy ñan sëñ Masamba ummi mii wax nañ ne moom mooy ci jëkk sëriñ Ibra Ngoone Njaay sëriñ Maram Njaay Wàqi sëriñ Abdou Guèye Tàggaar sëriñ Bay Waajur Njaay sëriñ ma Jóob Béy sëriñ Njaay Mbula Sekk sëriñ Mustafa Kan sëriñ ma Penda Njaay Wàqi sëriñ Abdou Marema Njaay sëriñ Maagey Fatima Njaay sëriñ ma Penda Jóob sëriñ Moodu Géey Ndeeli Deli Deli ak Serigne Modou Gueye Ndiob ak Serigne Ibrahima Mbeng Serigne Ndiaye Fatim Seck Serigne Mapenda Cissé Serigne Mabey ak Serigne Modou Aïssa Ndiaye Waqi ak sëriñ Kala Sey ak ki nga xam ne mooy Serigne Mor Sala Ganna ak ki xam ne mooy Serigne Ali Ndiaye Serigne Ali Deru Ndiaye ak ki xam ne mooy Serigne Moyib euh, Sala Ndiaye euh, Waqi ñii la daal seexal bi nga xamee ne yàlla dogal Euh, mu nekk ca noonu amoon na ak njaboot njaboot gi nag ñi ngi nii sëriñ Abdou Fatim Mballo moom Touba Ndiaye la ko dëkk ndax sëñ Touba dana ko woon doo doon na sa baay mën ngay doon moo tax bi fi sëñ Darou Assane jógee 24 moom la daa yabal rakkam jooju Touba ne ko desal foofu ak teel bii man ma des fii moom la lay des ak sëñ Fallou Ndiaye ak sëriñ moor ak sëriñ Abdou Khadir Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Mbaye Fallou Ndiaye sunu mbokk la ak ku ñuy wax sëriñ Ousmane Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Modou Assane ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Karim Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Rahim ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Rahman Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Abdou Cheikh Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Darou Aram Ndiaye Aram Samb ak ku ñuy wax sëriñ Modou sëriñ Modou Mbecco ak ku ñuy wax sëriñ Mamor Diarra ñaari sëriñ Mamor Lam ku ñuy wax sëriñ Mamor Fati Sarr Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Aliou Ndiaye ak ku ñuy wax sëriñ Mbacke Fati Dieng ak ko ñuy wax sañ Omar Ndiaye wax nañ ne kii moo ko fi jëkk jóge ak ko ñuy wax sëñ Modou Makhtar Ndiaye moom it moo ko fi jëkk a jóge soxna yi ko ñuy wax soxna Saw Saw Jatu Ndiaye soxna Nafisatu Ndiaye soxna Walima Ndiaye soxna Safi Safi Safiyatu eh, Ndiaye ak soxna Xari Ndiaye ak soxna Astu Ndiaye ak soxna Sooda Ndiaye ak soxna Aminta Kan Ndiaye ak soxna Busa Ndiaye ak soxna eh, Ummi Ndiaye ak soxna Maymunata njaay ak ku ñuy wax soxna Say Ndiaye ci ñi nga xamante ne si ñooñu ñoom lañ xam ñii ñooy ay xalifaam xalifaam yi ko fi jëkk wutu 1924 ba 1936 sëñ Fallou Ndiaye la 1936 ba 1971 mooy sëñ Bay Fallou Ndiaye 1971 ba 1978 Serigne Ousmane Ndiaye 1978 ba 1990 Serigne Modou Assane Ndiaye 1990 ba 1992 sëñ Abdourahmane Ndiaye 1992 ba sëñ Abdou Rissakh Ndiaye. ñooñu ñooy ay doomam juróom benn doomam ko fi wutu sët yi door a tàmbali muy ki nga xam ne moo tàmbali 1994 ba 1998 muy Serigne Mbacke Awa Ndiaye 1998 ba 1914 Serigne Cheikh euh, Fati Silla Ndiaye mi euh, euh, ba 2000 2014 2014 ki ko fi wutu mooy Serigne Mbacke Fati Silla Ndiaye mi bokk Serigne Cheikh Fati Silla Ndey ak Baay kon ñooñu ñooy ñi nga xam ne mooy ñi ñuy tudd keroog bi muy wàccu liggéey nag. yàlla dogal Touba Ndiaye la ko defee waaye ak kiimaan da caa am biñ ko waxee sëñ Touba dane demal ngeen fexe ba jële ko ca Touba Ndiaye googa indil ma ko fii ñu daal di daaj ak kees dugal ko ci taalib yi ko yenn woon yor yor lañ fa déparé takkusaan fekk nañu ak si Touba kon dañ leen a taxañal yoon wi ndax bañ noppee bay dellu dox nañ ko lu mat ñetti fan mu daal di yebal sëñ bu Buso ne ko foo nekk maa fa nekk demal nga taxawul ma sama xarit boobu nga xam ne yéen a bokk jikko bokk lépp mu daal di ñëw mu jullee ko ba mu ko jullee ba noppi nag am na témoignage yu mu fa def na moom kat jikkoom ji nekkoon ci moom def na ko ci njaboot gi yëpp daa di woo sëñ Omar Diop na ko boo noppee it yow it na nga daa di dem euh, euh, fekkee ji denc ba waaye boo fa jógee na nga ma demal njàmbur boo demee nga wala na nga ma demal ca kër ga boo demee nga teewal ma fa te néeg boppam boobee boo demee bu ca dugg ndax yéen a bokki mbir te boo ca duggee daal di koy fekk léegi ba mu dikkee bañ denc ko mu wax ne sëñ Tuubaa wax ne na ko sëñ Mandumbe ñaanal bala ñu caa def dara sëñ Mandumbe nee nañ bi ñëwee ba tiim bàmmeel bi fekk na maanaam fekku fi jenn jëm booba nag sëñ bi dajale na mag ñi wax leen ne leen ubbi foo xam ne si dafa mel na ku fa ku fa dëgg ab tànk sëñ bi ne ndax tànk bii xam ngeen ko am ku ne ko ah tànk bii day bu doon sama sang baa ngi dund mën a moom mu ne ko moom la moo fi ñëwoon léegi di wax nag xéewal yi nga xam ne suñ borom defal na ko ko ci àjjana bañ noppee sëñ Omar Diop daal di jubali fa nga xam ne mooy kër gi ba mu demee it témoignage yam fa témoigné ñëpp xam nañ ko mësta delloo laaj ci alalam mësta delloo laaj ci ab xam mësta jullit ba jàpp te jàppul mësta tudd kenn fu mu nekkul lu ko waaye mësta laaj ci alal dala ko jox lu ko waaye mësta laaj ci xam-xam mu jox la ko mësta tudd nit fu mu nekkul it waaye mësta julli ba jàppul loolu mooy témoignage bi nga xam ne def nañ ko ba nga xam ne julli gi mu daan def daana ko def téeméeri rakka par kaamilu alxuraan ba benn bis am na soxna su ñëw wax ko fekk ko mu julli ba noppi mu ne ko waaw te julli yi ngay julli bu sëñ Tuubaa dikkoon ne la bàyyi ko nooy def mu ne ko bu ma woon bàyyi ko lu ma réerlati penku du ma ko sax gestu dama koy bàyyi foofu nag boo xoolee xam ne sëñ Tuubaa moo boole ñu yoon ba pare nas leen ci génn buum ndax sëñ ma Lamine na ne man na damaa sant yàlla ñaar li ma sant yàlla ci ñaar mooy bi sëñ Tuubaa wootee ma ñëw wuysi ko waaye bi mu wootee te woote sunna ndax bu wóotiwul woon sunna man du ma dikk te wóor na ma ne ku wuysiwul woon da nga kon kii nee na bu wóoti woon ma ñëw kii nee na bu nekkoon kon sëñ tubaab boole ñu bokkutu yoon mu fexe ba dajale leen ci génn buum loola sëriñ tubaa rek la ko yàlla defal kon nag sëñ Daaru Asan Njaay ay mbiram rëy na sëñ Bay Faloo mii nga xam ne nag doomam la ñun ci lañ bokkee ak moom maa ngi moom ñoo bokk menn maam sëñ Bay Faloo Njaay sama baay tudde na ko doom ndax Ali Seena ba mii nga xam ne doomi Demba Seena doomi Demba mbërgu la woon yoroon Seena ba gay Ali Seena ba loo mii moo yoroon soxna si nga xam ne xam ne mooy Awa Njaay bokk ci drogue am ca taawam awaloo Awa Njaay ak Faloo Awa Njaay awaloo awa Ndiaye moo jur Aminta Lo mi jur ma dikk mi jur euh, Mor Aminta ak Soxna Ndiaye ma dikke ak na bu ma dikk Soxna Ndiaye ma dikk mii nag moo jur ki nga xam ne moom la ñuy wax Lamine Demba mi jur baay Baara gi mi jur Moustapha gi mii di wax a génn kon dajee nañ maag moom ci awaloo awa Ndiaye awaloo awa Ndiaye mi faaloo awa Ndiaye mi bokkal moo jur Demba faaloo Demba faaloo mii moo yoroon soxna si ñuy wax Bale ma Sëy Bale ma Sëy mii Siré Xuja Kumba ko jur Siré Xuja Kumba mii moom tamit gis ne doomi Ali Sene ba Aly Sénéba Lo kon Demba Falloo Falloo Awa Ndiaye Aly Sénéba Demba Falloo euh, Bale Fatma Sey mi mu yoroon Siré Khoudia Kumba Aly ba moom nag bi mu jëlee Bale Fatma da ci am ku ñuy wax Siré Bale waaye moom Demba Falloo moom ma Samba Falloo ak Siré ak Makhtar Falloo ak Biram Falloo ak Karjata Falloo ñoom ñoo bokkul lépp ñooñu la bokkal waaye Demba Falloo nag bi mu yoree Bale mi bokk ak Modou Fatma Sey ndey ak baay ci la am sire Bale ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Falloo Diop ñoom ñaar ñii euh, Demba Falloo leen jur léegi nag Siré Bale moo jur Awaji Diop mi jur Madiang Guèye mi jur baay Baara Guèye mi ma jur man Fallou Diop moo dem kër sëñ majeng Fallou am fa doom sëñ Madiang Fallou tudde ko ndayam muy Fallou Dieng ñu jox ko sëñ Darou Assane Ndiaye mu jur sëñ Baye Fallou kon loolu dafay leer kon loolu mooy li nga xam ne tey moom lañ leen indiloon ci ñaareelu pàcc bi di la wax ne man ci kër sëñ Darou Assane laa bokk ndax ku baax ku ñu tudd ci biir Touba yàlla dogal na bokk ba ci ku tedd ki maami boppam ji wax mbër gu dem ba sene ba maag moom bokk nañ ci daje kon man fu ma dem war naa faa dem lu ma wax war naa ko wax nit mënu koo mënuma koo xañ nit mënta ma wax ko ndax do lu yàlla def la du du sama coobare te ku ko bëggit doo ko doo ko mën a am te yàlla dugalu ko kon nag loolu la ñoom lii mooy li doon fàttaliku sëñ Darou Assane Ndiaye noo ngi delluwaat di baalu àq lépp lu ci dëng nu na lu ci jub yàlla la gudd na lool nag ndax mat na daanaka 40 minutes kon ñu ngi siyaare bu baax di baalu àq ñëpp di nuyu ay taalibeem di leen siyaare ndax gis nga ne Euh, moom bi mu fi daataan jóge waxoon na lu leer nañ waxoon na leen ne taalib yi képp koo xam ne bu ma fi jógee da ngay won sama njaboot gannaaw maa ngi lay wax ñu teel a tàggoo ndax du ma fekki la képp koo xam ne nag euh, da nga topp sama njaboot ñu ngi noonu dem loolu tax na bi sëñ Cheikh Faty la ñëwee màggal yi fi nekkoon yëpp dafa wax ne nañ ko daj dajaloo def ko genn dëru Njaay genn màggal lañ am muy 19 muy muy muy muy 20 janvier loolee boole googee la ko yàlla defal kon kooku jëmmangoog joo xam ne yàlla na yàlla taas ci barkeem ci barkeb Seydina Muhammad barke Cheikh Ahmadul Xadim sangam ba yàlla na yàlla dolli ci réew mi jàmm ci barkeb Sëñ Daaru Asan Njaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu